One Lyrical li mu wax Mollah Morgun ci Instagram am nee na Mollah tu es loin d'intelligent dil bi setul moola aka ngaa sore ku muus waaye sa dil bi setul mooy linga nga xamante ni Mollah def na ko te kenn yaakaaru ko woon ci moom muy live bi mu def di wax ni déglu na ay audio Ousmane Sonko seetaan na ay vidéo am na loolu daf ko bett muy waat ñu xëy Mollah publier benn photo boo xamante ni bi ko publier ci page Instagram am dafa dagg kanam gi nag daan ni xool leen moom la wala du moom Ousmane Sonko la mais ñëpp xam nañ ni photo bi dañ ko montage jël kanam Ousmane Sonko bi comme ni ngeen ko gisee nii ba nga xamante ni lii sax ku xamul dara sax dina xam ni lii dañ koo monté moo nag li ñuy wax bul bi dafa tourné yàgg na di yàq ay nit ay kilifa ay jabari kilifa ngeen i partagé li nga xamante ni loolu doon wax ci nit ñi di leen sosol yàlla nag def bul bi tourné tey ñooñu doon partagé doon ko def ay inspecteur ñoo koy saaga ni moolaa mi du nit koy wax dëgg li nag li mi jàngale mooy nit sooy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci dëgg donte nag far ku nekk mën nga ko def mais booy far bul di suivre wala ngay seetaan koo xam ni li muy wax ni amul benn njariñ moo xam laa moo xam ñeneen ak ñeneen ñu xam ne ñu bëri ñu ngi def ay life di waxal nit loo xamante ni amul te yéen a ngi leen di encouragé yaakaar naa ni li gën a am ful la mooy ku nekk sa leader toppe ko loo xamante ni tey jii nii lu mu wax dina la jariñ moo gën ngay déglu koo xamante ni ma nga ci àll ba di def ay live di yàq ay nit nga koy tàccu di partager te leçon boobu noonu tey jii nii war na leen jàngal ni waa ji nii dafa yàgg di yàq ay nit ngeen koy gëm kon tey bu camp bi tourné du ngeen ko partager xam ngeen ni li mu wax du dëgg te ñëpp ko gisandoo même ku ànd ak Ousmane Sonko da ngay xam ni lii ay sos la lii nii lu ñu monté la pour lan pour photo yeeg vidéo yi ñu wax am na ñu ni voilà lii mooy photo yi mais comme que nee na des ay vidéo des na audio gars yi koy xaar moo la comme que moom ne nga yor nga preuve yëpp ñu ngi koy xaar donte na ci li nga xamante ni nee ko deux moom nee na moom si dëgg lay dox la donte dossier Adji Sarr bi def na si lu ne na wane na si preuve yu ne nee na tey buñ fekkee ne ko a saaga mais moo nekkoon première info ñu jàll si deuxième info defu ñuy pop pour xaritoo bëgg traw sama adio nee ko na góor jàpp si góor góor bu demee bay góor góor lu du góor nee ko bi de làkk la te boroom ma làkk la topp si ginnaaw mu làkk la bugguma génne album bi miracle la taal bi John Wick disponible na gars yi depuis vendredi 27 janvier dem leen ngeen seetaan vidéo bi nice na trop borom Thiès kaay train ñu jàll si troisième info Samba Peuzzi l'international Mercedes en featuring vraiment Samba Peuzzi comme li ma wax won rek dafa réaliser rêve am bi nga xamanteni ni yàgg wax mu mom dafa viser vous sori pour international tay andana ko xamni xam da du ko présenter muy Rema from Nigeria muy star planétaire nga xamanteni vraiment ñëpp ko xam moom la Samba Peuzzi décroché le titre c'est Mercedes allez dama leen ngay saan vidéo bi disponible na depuis le 27 ans. ñu jàll ci dernière info muy Karabali Beat Karabali Beat nag kenn de du ko présenté mu nekk beat maker Dip Doundou Guiss bëri na ñu mu liggéeyal ci Sénégal ñoo xam ni seen say ay son def na it moom nag d'après bi nga xamante ni def na ay at métier maker ci la ñëwee. jox ñu benn album boo xamante ni bëri na ay couleur album bi nag mu ngi tudd général Kara ñenn ñi nee nañ Karabali day rap wala day woy mais Karabali ñu fàttali leen ni beatmaker la day composé ay beat invité si ay artistes ñu tegu si peut-être ay toblaan yu muy def ci beat yi wala mën na see téye refrain ndax toblaan yu muy def nice lan mooy ay toblaan mooy nga composé beat ñëw teg si ay refrain wala nga teg si ay vibes artiste bu ñëwee ci noonu la ciy tegoo boo xoolee sax album bi beat bi nga xamante ni Dip mi ngi ciy tege moom moo ko composé yaa ngi gis ci vidéo bi mi ngi yor euh, ay instrumental euh, juste muy wane yooyu yëpp moo nekk ci biir album bi kon gars yi ñu xaar album bi le 10 février L'album bi di génn album bi mi ngi tudd Général Kra muy Karabalik Beat nee na album bi dina am couleur yu bëri yu si nekk ay style de musique pour le bonheur de toutes les mélomanes yi nga xamante ni dañuy kii musique donc gars yi loolu moo nekkoon info yi nga xamante ni indil naa leen ko yéen tamit seen réaction ci commentaire yi ah, ngeen wax naka ngeen gisee info yi après yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doog a dugg ci chaîne bi ngeen abonné te boo leen abonné ba pare bu leen fàtte ba seen cloche notification ba vidéo buñ dugal ngeen mën ko am